li ko dagee si la Senghor Daaru Salaam Ersan Silman Poy Poy Mbudaay Fay Fay seen seen njoon njoon aw ma seen fay. mu gisee koo xamante ni dafay geesu jeunesse Thiès loolu dama ciy sant bu baax a baax te am na samay morom yoo xamante ni ñu ngi yor seen i putu di jaay galaas fii ci leen fay inscription dem jàngi école président bi day dimbali ñoo xam ñu ngi biir xoolal biir université di jàng mu leen di fayal ñuy jàngi kii seetaanul kenn. bi nga dama koo waxoon laa koy wax président Abdoulaye Dièye ma damaa wàccoo ak moom barki yonent bi dina ma jaral a fanaan àll dina ma sax samay dàll dox ba dagg parce que suñu amee juróom ñu mel ni ñoom yonent bi xam na ni cee changé. moo xam séeréer xam ni bu ñu xësee ba engagé wu rek c'est parce que li ñu engagé wu dañ ko gëm. Issa wax nañ ko fii guddi bëccëg ngoon mu ngi daw si li nga xamante ni mooy massifier le mouvement Siggi Jotna loolu dox suba loolu dox goudi loolu dox bëccëg donc isa ñu ngi lay remercier di la féliciter ci sa engagement ci sa dynamisme ko xam mouvement Siggi Jotna nag xam ko ni li leen ñor rek moy taxawu askan wi te seulement dañ fay signer engagement bo xamanteni dañu wara and ànd ak ñom je pense que ni man wa seulement wàccoo nan ak man ndax tay ku la wo di la sargal cela veut dire que sas na la donc nak du leen ci bàyyi yéen jigéen ñi dinañ leen gën a taxaw ci seen i activités génératrices de revenus dinañ leen taxaw ci ay financement ba ngeen am seen autonomisation mais aussi capacité leen ci ay formation ba ngeen mën a demal seen bopp. mouvement Siggi Jotna na ku ko xam xam ambition mooy defar dëkk bi bokk si ñi nga xamante ni dañuy développer Thiès parce que tey Thiès ñun ñoo ko war a mën a defaral suñu bopp ñu xaar kenn koo xamante ni mooy ñëw di ñu ko defaral donc ñu ngi leen di gën a ñaax ngeen gën a am taxawaay. liggéey ngir Cees jëm karam silma xam leen ni bis ni ki tey ñun dina àndandoo ak yéen ci liguey bobu lepp lo xamanteni soxla ngeen ko rek dañ ci taxaw waxtaan ci ngir mën ko jëfee mu jëm karam te it euh, di lancer appel rek ndax euh, président de la république dafa woté un Sénégal propre donc tay je pense que ni moy actualité bi nga xamanteni ñepp war nañ ko xam fin bu si nek le premier samedi euh, du mois di def ay set setal donc nak wa silma loolu bu leen ci kenn euh, jitu parce que aussi loolu acte citoyen la nit ku nekk sa gox ya ko mën a defaral sa bopp parce que bul xaar kenn ñëw di la defaral donc ñu ngi leen di ñaax ngeen gëna def ay activités set setal ay acte ay activités de nettoiement ñun dinañ jël engagement ak suñu yaay Aïda Seck ak suñu frère Issa bép bép matériel bo xamanteni soxla ngeen ko rek muy ay balai muy ay brouette nañ leen si taxawu jàppale leen pour ngeen setal seen gox ndax set kat set mooy indi wér-gu-yaram te wér-gu-yaram mooy tax nit ki mën a liggéey te bu ñu liggéeyee développé suñu gox donc tey yàgg ngeen koo wax bu euh, si leen am ay leaders yoo xamante dinañ leen taxaw dinañ leen seet mais xam leen ni tey am ngeen koo xamante ni fonk ne leen ndax ay gor ngeen am nga koo koo xamante ni mu ngi seen gannaaw ndax du ngeen wor te incha allah dinañ leen taxawu jàppale leen liggéey ak yéen ba fi ñu war a jëmee Thiès ñu jëm fa. parce que kat kat ñun Thiès dañuy dellu gannaaw mukk si suñuy gis-gis yoo xamante ni am nañ ko si dëkk bi ndax dëkk bi ñoo ko war a defaral suñu bopp du ñu bàyyi kenn diñu ko defaral.